والشفاء والدواء ak sëriñ Abdou Salaam Mbàkke sa xel war nay dal gannaaw boo jëflanteeg moom ba pare waaw ci alxuraan rek lay dox déggoo ma de ñaanam xaas la muslaay gaa ko raw yow mi say mbir dëgër maanaam nga umu bëgg a ubbeeku nag ba loo yóotu jot ci sëriñ Abdou Salaam Mbàkke moo ma ci doy balak maaram ay saak saajo waajaa ngi nga bëgg a liggéey bëgg itam tukki mu tëla ngay lijjanti ay kayit mu dëgër nga jortu ni dañu la liggéey baa xewoo déggoo ma de mooy safoo kenn nga bëgg bayre moo ma ca doy yaay raw ci ngénteel bu ngeen jëflante nga nekk itam bitim réew ay kayit jafe la lool waaw ba ci yow bëgg liggéey mu la ana ñi bëgg bayre njaay la mu cay def mucc na ayib ngay jigéen bëgg bayre pour ñu sopp la bëgg la ba ci góor itam nga bëgg bayre ah amu ca morom waaye kaaraange gaa ma ca gën a neex aar la doog la koy jox nga nekk ci entreprise bëgg a yëkkatiku yow mi yor sa entreprise itam bëgg ay muslaay néegi sa yi bari rëng-rëng day sëriñ Abdou Salam Mbàkke moo ma ca doy coow la bu ngeen jëflantee ngay jigéen di Koukandé danga war a xaj xar géej gi mënoon ngeen ñëw ñu ko rek ndamu solo mbir yi dootul yàllay kese de mais nag confrontation par contre yàllay kese la te xam nga ñun kenn duñu fay bu toog mhm. kenn fayuñu déedéet dañuy toog ñu waxtaanee ko du la neex rek ngay dégg waaw loolu yàlla dimbali nañu ci mën nga ñëw ñu jàkkaarloo parce que dama sañ sama jekk faa démb laa ni ngeen musoor ma ma def sama barakatu bu baax am saa ñaw ko waaw waaw seen gold pourtant xeeb ma woon sa bis bi de mhm. ma saa sama maquillage bu baax Amélia defal ma ko ma laal samay gold ndànk war a ñëw tax waxtaan ak yow ba pare teral la mhm. dama doon jox ay kado ay coffret ay power bank du ne jox naa ko parce que am nga sama sponsor dañu am maanaa te dañ ko doon waxtaanee rek en ñu fexe rek ngay wax ñuy teggi ngay wax ñuy teggi ñuy wax ngay teggi noonu rek la waroon a demee mhm. <laughs> ñi doon xaar bari na de waaw waaw ñoom da bàyyi baar mhm. groupe yàlla lay kese ñoom ñëpp ñu ngi doon xaar pourtant ma nga noonu émission annulée mhm. annulé. jëkkër sa jëkkër dana la gën a nopp waaye say goro ci say njëkkee say mbokki jëkkër dañu lay adoré fu ñu mën di toll waa koñ bi nag ñépp lay sopp ngay sëy ci kër am jafe-jafe ak sa borom kër ba ci yow mi jigéen bëgg jëkkër mu tëla ngay góor itam bëgg soxna mu tëla ah ngi waay ba ci yow mi faru rab sonal muy ko góor ki mbaa ko jigéen ci ñaari wàll yépp nag boo bëggee dégg-dëgg ba ci ñaan listixaar ba tey ak seet woo ko ci 78 433 78 ba tey nga amee ndoxum ba ci ñu baamtuwaat ko 78 433 78 78 moo ngi nekkee Géejawaay marché Sam en face centre commercial bi ba tey yéen ñi bëgg ay muslaay ba ci ndomba kaaraange yi fii rek la man DJ Mboy normal de yàgg naa di leen wax ki ko mën a ki koy jéem du benn ak Serigne Abdou Salam Mbacke rek njàqare day daal di ba jeex tàkk ci kàttanu yàlla ak mbaaxam aajo yépp faju salaam alayhi rabbuna kama